أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala darsu tey bi mu ngi ci yonent yàlla saalex ñu ngi woon ak yéen fii waa dëkk mbooloom daal di fettéerlu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala daal di moy ay ndigalam te mooy rey gëléem gi fekk am na lu mu leen ci waxoon ginnaaw ba mu leen ci waaree ne leen lii gëléemu yàlla la bàyyi leen ko mu dund comme ni ko yàlla santaane gëléem gi nekk ak ñoom ci ay at mu moytandiku loo leen laal gëléem gi walla laalal ko lenn ci lu yàlla bëggul ñu daal di féttéerlu wa aqaru naaqa ñu dem rey gëléem gi ñu cor ko fa lamma taala alayhim hada alxaal ijtamaa ulamaauhum واتفق رأيهم على أن يأطروا هذه الناقة ليستريحوا منها ba nga xamante ne dem nañ ba sonn ci gëléem gi naan tey ñoom ñu naan suba ñu ne xam nga lu xew seeni boroom xam-xam daal di dajaloo waxuma sax cumbur cumbur ya waaye ñoom li tax seen bos graaw mooy seeni boroom xam-xam ñoo dajaloo bi boroom xam-xam ya dajaloo ñu daal di dëppoo ne def ista ne dañoo war a rey gëléem gi ndax ñu noppalu ngir ndox mi mën leen a doy ñoom doom wa zayyana lahum seytaanu amalahum seytaane daal leen di rafetal seen jëf lan la seytaane taaral ci ñoom mooy rey gëléem gi daal dara nekku ci suñ ko reyee dañuy noppalu gis nga seytaan bokk na ci li muy alak doomu aadama mooy day fekk lu yàlla araamal lu ñu tere seytaane ñëw taaral leen ko loolu booy xool tey dund gi di nga gis lu bëree bëree bëri bëri yàlla bugg ko mais seytaane fexe na ba nit ñi bëgg ko taaral ko ba mu rafet ba sax dem na ba nga xam ne léegi ku ko deful bokkoo te pourtant def xaraam borom bi di nettali ci ni leen seytaane naxee ba taaralal leen seen jëf ba ñu rey gëléem gi mu ne fa aqaru naaqata wa ataw an amri rabbihim wa qaalu ya saalihu itina bima taiduna in kunta min alsaadiqin borom bi ne rey nañ gëléem gi cor nañ tànk yi dagg ko ñu mooy seen ndigalu boroom ba ñu reyee gëléem gi ba pare xam nga lu ñu def ñuy zibilé xam ngeen zibilé mooy équipe bi ci koñ bi bu gañee coupe ba jógee stade nu muy def ni ñuy def dañuy wër a coupe bi koñ bi wër a coupe bi dëkk bi ñoom tam dañoo rey gëléem gi ba pare nag ñuy sibile dugg ci dëkk bi naan saalix itina bi ma taiduna in kunta min al mursalin bu dee li nga wax dëgg la yàllaa la yow dina mbugal mi ñëw ñun pare nañ allahu akbar bu dee yonent nga yàllaa la yónni da nga ne woon gëléem gi bu ko kenn laal ñun rey nañ ko itina bi ma taiduna in kunta min al mursalin indil li nga doon wax bu fekkee yàlla la yónni dëgg la tey lay leer allahu akbar ndeysaan saalix yëgu ko woon mu daal di génn li tax ñu rey gëléem gi nag mooy chaque jour li tax yonent bi salaa salaam di ñu mooy tandikuloo mbiri jigéen mooy lu jaram mooy tandiku la am na benn waaye bu tuddoon Sunaym ibnu Harawa dafa takkoon jigéen joo xam ne jigéen ju am alal la jigéen jaa ngi tuddoon saduqa waaye moom Sunaym ku gëmoon saalix la da daan jël alal ji di financer saalix ndaw si mer ci lool di ko tere saalix guddeeg bëccëg waaye waa ji comme moom benn ndongo la ci ndongo saalix yi mu lànk ndaw si tamit xamal ko ne daal mënuma dund ak yow ci nii da ngay weddi saalix nga bàyyi saalix wala ma bàyyi la waa ji tamit daal di jël ay doomam ndaw si daal di jël doom yi dem dénkaane ci ay doom bàyyi taxam moom sunay mu dem ci ay mbokkam mbokkam yi dem ci mbokki ndaw si ñu nangu doom yi ñu xamal leen ne doom yi kat bàyyi jee ko moom ñu jox leen doom ci ndaw si gën a mer moom ndaw soosu mu mere jëkkëram waaye mu mere saalix ci biir mer boobu nga xam ne yàgg na am benn waay ñëw di ko labat benn waay bëgg ko di ko waa ji bëggee lan la def proposé waa ji pour waa ji takk ko waa jooju mu ngi tudd xubdaar ibnu saalif kaana azizan fi qawmihi ku teddoon ci ay mbokkam la borom daraja la woon comme borom daraja la nag ponkal la comme ni ko gars yi waxee ngand la bi mu ñëwee bëgg ndaw si ndaw si ne ko comme yow ngand nga da ngay joxe can loo xam ne kenn mësu ko joxe ci àddina bi maa da ngay def lu kenn deful xam nga loolu loolu loolu la nit ñi tey borom doole day dégg ñu ne diw borom doole la su ko defee moom mu ne li may def kenn mësu ko def mu ngand ngand la xam nga nit ñi dañoo mën a jayee waaw diw borom doole la allahu akbar kooku ñu naan borom doole moo yàlla kopp doole kon amul doole maadaama yow yàlla moo la ëpp doole rek war ngaa xam ne amoo doole beneen bi mooy yow doole ji nga am ku la ko may doomu aadama war na bàyyi xel loolu de allahu akbar waa ji biñ ko waxee loolu rek mu rakkaaju pour nag mu rëy gëléem gi moom kenn non loolu day day day day tuuti mu dugg ci biir dëkk bi di ut ñan ñoo koy dimbali pour ñu rëy gëléem gi mu dugg ci biir dëkk bi di ut ay àndandoo intalaqa haulaai rijal mu départ mu am benn mbooloo ñooñu yàlla naan ak tisatu juróom-ñeent al asrar juróom-ñeenti yàqkat yooyu ba mu amee juróom-ñeenti ponkal yu toll ne moom ci biir dëkk bi ñu dem fekk gëléem nga ca àll ba moog doom ji moom xuddaar moo njëkk a jël flèche daal di fett gëléem gi bi mu jamee gëléem gi ci tànk yi gëléem gi waaf ñu yegsi ak seeni jaasi xam nga gëléem kenn du ko rendi ku mës a gis fii ni ñuy reyee gëléem gëléem dañ koy loj gis nga baat bi ni mu guddee nii ci kaw jóge ci gémmiñ gi wàcc ñëw nii ci suuf dem foofu muy tourner nii di ñëw ci tànk yi foofu la ñuy jam gis nga foofu boo ko jamee su gëléem gi noyee rek deret ji day tuuru mel ne paanu ndox buy tuuru lu mu gën a noyyi rek deret ji gën a génn noonu la ñuy reyee gëléem avant loolu nag da ngay takk benn tànk bi da ngay jël benn tànk bi lem ko ci óom bi mu jëm kaw nga takk ko ba mu dëgër nga bàyyi ko mu taxawee ñetti tànk lu mu gën a onk di yuuxu day yuuxu lu mu gën a yuuxu rek deret bi sotteeku lu mu gën a yuuxu deret bi sotteeku day dem ba daanu ci suuf ndeysaan su ko defee ñu ñëw fees ko noonu la ñuy reyee gëléem bi mu jamee gëléem gi rek gëléem gi waaf gaa yi ñëw dagg tànk yi gëléem gi bi mu daanoo li mu jëkk a def mooy dafa yuuxu pour alerte doom ji xamal doom ji man yaay ji maa ngi ci danger dawal yow nga nga mucc doom bi daw ndeysaan ñu rendi gëléem gi doom ji daa daw borom xam-xam yi ñenn ñi ne nañ fa lamma raaha waladaha ba doom ji gisee ñuy def noonu yaay ji hërëba ila alal jabal mu daw yéeg ci kaw montagne bi ñeneen ñi noono dafa jub montagne bi montagne boobu mu génne woon xotteeku mu dugg moo tax ñenn ñi naan bu ñu demee ba yowmal qiyaam daaba boobu yàlla di wax de dina génn tukallimu naas di wax ak nit ñi daaba boobu la mais loolu yenuwul dalil ñoo dafa am ñu wax loolu rek l'essentiel que doom ji moom reyuñu ko yaay ji lañu rey ba ñu reyee yaay ji doom ji rëcc dugg ci biir montagne ba waxaana waxtul xilaak léegi nag jamono alku jot na fa lamma alima nabiyallahu saalih alayhi salaam ma hadas bi saalih yégee li xew xaraja gaadiban mu génn mer ala qawmihi mu mere nitam yi ba fu mer yem ndax xam na ne lii ñu def saye mu mer trop waaw ngoon ah waxuma loolu loolu mooy can bi pourtant wax naa ko ma ni waa ji dañ ko laaj ne ko fa nga joxe can boo xamante ne kenn mus ko joxe mooy lan rey gëléem gi wa qaala lahum mu ne leen moom saalix alam uhazirukum min an tamassu naaqa bisu waxuma leen woon gëléem gi bu leen ko laalal lu bon gëléem gi bu leen ko sax xool xool bu bon waxuma la ngeen laalal ko laal bu bon mais xool ko xool bu bon sax bu leen ko def yàlla daf leen ko tere fantazirul azab comme rey ngeen ko nag xaar leen mbugal mi ñëw na ndeysaan allazi sa yaatikum min indillah mbugal mi nga xam ne léegi yàlla mu ngi koy déclenché mi ngi ñëw wa ma zalika xoolal ginnaaw loolu yépp liñ def ak rey gëléem gi ba saali ñëw avertir leen ñuy xaqataay di ree di ubbi butéel boisson yi puurit bi di naaw ci kaw ñu koy xëppanti ñee di tëgg seeni sabar jigéen ñiy fecc di saraxolle ñu yëkkati seeni jaasi naan ko itina bi ma ta'iduna in kunta minal mursalin bu dee yàllaa la yónni towal doj loolu ngay dégg li wax comme li waa Sénégal di wax boo dee yàlla towal xeer boo dee yàlla towal doj boo dee yàlla na géej gi débordé day dégg nit ñi yu bon yooyu ñuy wax def seen yu bon ba pare di lancer yàlla défi naan ko ñëwal allahu akbar ñu génn di reetaan saalih saalih wax leen ba mu lem leen wax ba pare di ñibbi ñuy ree ñu yaakaar ne dara du leen dal yaakaar ne saalih da leen di nax gëmuñu ko yaa saalix itina bi ma taiduna in kunta min al mursalin mais li ngay wax dafa yéex na ñëw fa qaala lahum saalix alayhi salaam tamatta'u fi daarikum salaasa aya salaasata ayaam zalika waadun gayru makzub saalix ne leen ñetti fan laa leen may ñetti fan kontaan leen ñetti fan zibile leen ñetti fan yuuxu leen ñetti fan ginnaaw ñetti fan yi lii ma leen wax dootu ko paase yàlla ni leen buggal ixwaan kayfa nazala al azabu ala al kafirin naka la mbugal mi wàcce ci ñoom laqad waadahum saalih an yunazila bihim al azab bada salasat ayam saalih wax na leen ñetti fan laa leen may mbugal wàcc ci yéen dootu ko paase wa kaanu qad qatalu naaqa yowmul arbia bisu àllarba lañ rey gëléem gi xam naa àllarba yu bon yi ci am daa bëri loolu moo tax waa Sénégal jàpp ne àllarba bis bu ay gaaf la duñ ci def dara wa asbahat samuudu yowmul xamis waa samuud xëy bisu jeudi wa huwa yowmul awal min ayaamil muhlaka mooy premier jour bu leen yàlla nar a alak ñetti fan la leen may àllarba lañ rey gëléem gi jibile àllarba bi yëpp ba fajar jot ñu tëdd jeudi xëy seen kanam yi daal di jaune ñoom ñépp kanam yi jaune góor ak jigéen mag ak ndaw dëkk bi yépp kanam yépp jaune bisu àllarba bisu jeudi fa asbaha al yawmu saani min ayaami taajil ci bis yooyu ñu doon wax na mbugal ñëw wa huwa yawmul jumaa wa wujuhuhum muhmira jeudi kanam yi nuñ meloon vendredi kanam yëpp xonq curr ba raw deret ah am na lu xew fa asbahu fi yowmi saalis mu yowmul ahad waqad tahattanu ndeysaan wa qaadu ñoom ñëpp ñu dem ndeysaan xam na dañuy dee ñu préparé mel ne ku dee nu muy def ñu daal di toog nag di xaar dee ban jour moo ci des bésu samedi ñu xëy suba samedi kanam yi ñuul ko mel ne ko dorom fan la njëkke woon lu ci tegu troisième bi ñoom ñépp ñu ñuul ko kanam yi ñuul ba dootoo xàmme bët yi sax li ci weex lépp ñuul ndeysaan allahu akbar ñu xam ne nag mbugalum yàlla mi ñëw na yàlla yëgal saalih ne ko génnal yow a ngi la gëm fa kayfa yaatihimul azab naka la mbugal mi ñëwee ci ñoom asraqati sams xëy nañ jant bi fenk ñoom ñëpp yàkkeeku nañ ci dee découragé nañ ci dund jàppatuñ ni ñoom moom seen dund dootu na amati njëriñ ndeysaan xam nga léeg-léeg nga am mbokk bu feebar yegg ci feebar foo xam ne boo ko tiimee da ngay lan da ngay découragé léeg-léeg nga yor benn liggéey liggéey bi toll foo xam ne boo tiimee liggéey bi xool ko looy def léeg-léeg nga am jabar joo xam ne jabar ji da nga koy tiim xool ko léeg-léeg léeg-léeg nga am jëkkër joo xam ne yow ko jigéen ki da nga koy xool nga xam ne yow amatoo jëkkër ñoom tamit noonu la ñu découragé ci seen dund bu ñu xëyee ndeysaan jant bi xëy fenk talu ñu tal ndékki de lu tax kuy tal ndékki mooy ku nekk ci jàmm te lu ñu xëy liggéey yi parce que kii tal xëy liggéey yi mooy ku am jàmm ñoom dañoo xam ne dañuy dee jant bi xëy daa di fenk huit heures naaj bi génnagul fa jaa sayxatum min assama yàlla yónni jibril mu ñëw coin coin côté asamaan bi ufuk bi mu taxaw di leen xaar benn xaacu la leen xaacu ñoom ñëpp ñu sedd guy daal di dee benn xaacu jàng ngeen ko ci alxuraan yàlla mu ne fa amma samud fahliku bi maasa taaxiya benn xaacu la leen yàlla xaacu malaaka xaacu leen min assama wa rajafati shadid min asfali minhum suuf si daal di trambale seen kaw lépp lu wowoon lu dundoon foofu daal di faatu daal di dee lépp wow xam nga fuñ mujj fa asbahu fi daarihim jaasimin ñoom ñépp nga fekk leen ci seen kër yi ñu daal di bóof daal di faatu amul luy yëngatu ñépp a dee kenn ci ñoom yëngatuwul borom bi tabaraka wa taala mu ne ci quran fa axazathum rajfa fa as fa asbahu fi daarihim jaasimin ba leen xaaci bi jàppee ci seeni biir kër ñoom ñépp a dee kenn desul moo tax yàlla dooleem xejul ci nit yàlla doomu aadama moo doy waar rek moo féttéerlu moo dëgër bopp mais yàlla dooleem xejul ci nit dafa benn buur dafa mës a ànd ak ay xaritam ñu dem ci àll bi muy taw muy dënu asamaan bi lëndëm xiin bi di xiin ko di dënu melax bi di duur xiin bi di dal ndox mi sottee ko ñépp tiit buur bi ne leen pourtant haza min asaari rahmatillah lii yërmande yàlla la kon bu meree nu muy mel yàlla moo kontaan mu mel noonu kon su meree nu muy mel allahu akbar borom bi ne ci waa saalix fatanaadaw saaxibuhum fataata fa aqar fa kayfa kaana azabi wa nuzur inna arsalna alayhim sayhatan waahidatan gis nga sayhatan waahidatan fa kaanu ka xasimin muxtasir borom bi ne waa samud dañoo rey gëléem nga kontaan di tàccu di fecc di xumbal waaye xoolal man yàlla naka laa leen di mbuggee fa kayfa kaana azabi wa nuzur xoolal sama mbugal ak sama waar balaa ma leen di mbugal waar naa leen man yàlla maa yónni gëléem gi mbugal mi ci ñoom benn xaacu rek lañ leen xaacu ñoom ñépp ñu dee borom bi di misaal sax ni ñu faatoo mu ne ñi ngi mel ni ñax mu wow bu ay nag nappaaje ñoom ñépp ñu dee borom bi day wax ci suuratu suuratu shams fa qaala lahum rasulullahi naaqata allahi fa suqiya fa kaddabuuhu fa aqaruha lu leen yàlla def mu ne fa dam dama gis nga baat boobu kenn mënu ko firi ndax leneen yàlla def ni mu graawee ki bind téere bu siiw boobu nga xam ne téere luga la te mu tudd maqaama alxariri maqaamatul xariri bi muy firi baati alquraan yi baat boobu moo ko jaaxal ci baat ndax foo ko natte rek baat bi sax gis nga boo koy liir fa dam dama fa damdama alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawaha yàlla bi mu leen di bombardé di leen mbugal daf ko natt ba mu jib mu dóor xam nga après lu yàlla wax mu ne fala yaqaahu uqbaha résultat bi ragaluma ko gis nga Xadafi fi mu nekk li mu def li bi résultat bi mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy gis Mubaarak résultat bi li mu defoon Égypte mu ngi koy gis na ko yàlla nag fala yaxaafu uqbaha ragalul résultat bi kan mooy ñëw ne yàlla lu tax nga def li faalun lima yurid laa yusal amma yafal te wahum yusaluun yàlla nee na lu ma def man ah kenn du ma laaj man yéen la ñuy laaj yéen moom lu ngeen def ñu laaj leen mais man laa yusal amma yafal gis nga yàlla jalla jalaaluhu kon nit ñi war nañu bàyyi xel yàlla yow loo def ëllëg dinañ la poñe ne la lu tax nga def ko yàlla moom lu mu def laa yusal amma yafal mais yéen waxum yusaluun dañ leen di laaj yéen kenn du leen waxuma la laaj sax mais dañ leen di taxawal waqifuhum innahum taxaw loo leen dañ leen di laaj gars yi fakar fakar rek bëgg dugg aljanna ñu ne eh eh eh taxaw leen amoon ngeen ay njaboot amoon ngeen ay soxna waaw du ngeen wax ñooñu du ngeen loon yare wa wé ñëw fi rek bëgg a fakar fakari dem da ngeen di taxaw nag allahu akbar yaa yi taxaw ñu commencé di laaj yàlla mu ne maalakumul yawma laa tanaasaru lu tax tey du ngeen dimbalante acca dimbalante leen du bi ngeen nekkee ci àdduna dama doon wax ngeen yaakaar ne fii àllaaxira di ngeen fi mën dimbalante acca ndeysaan xam nga luy xew ñoom ñëpp dañuy jébbalu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala bal humul yawma mustaslimun ñu ne yàlla ñu yàlla ñun ñëw nañ ñu koy dañuy jéggal rek ñëpp mustaslim dañuy jébbul joxe seen bopp ne ñëw nañ kenn indiwuñu ñoo indi suñu bopp ñu ngi nii après luy xew fa aqbala baaduhum ala baadin ndeysaan ñeen ñi commencé lii yëpp yéen la lii yëpp yéen a ñu ko yóbbee lii yëpp yéen a ñu ko yóbbee commencé ku nekk di yedd sa bopp ixwaan borom bi tabaraka wa taala mu ne mbugal na leen mbugal bu metti ginnaaw ba mu leen faatee ñoom ñépp ci seeni kër bàyyiwul xale bàyyiwul mag walam yuflit minhum ahad la sarir wala kabir wala zakar wala unsa kenn ci ñoom rëccul am na yenn borom xam ñu ne dul benn jaam bu jigéen ismuha kalba ñu ne kooku rek moo ci rëccoon waaye moom it ba mu yaakaaree ne rëcc na fa mu demoon ba yegg làqatu dox bu mu dox métti bu mu ñëwee yegg si may leen ma ndox bëgg a nettali lu xew daal di faatu kon kenn rëccu fa ñoom ñëpp a faatu allahu akbar amal lazina amanu bu fekkee ñi nga xam ne ñoo gëmoon bi seydina saalix fa kaanu qad gaadarul makaan ñooñu day quitté woon nañ place bi bu yàgg maa nabiyihim moo tax yàlla chaque jour buy mbugal dëkk day wax yonent ba préparé la nuux bi yàlla di mbugal dëkkam lu mu la ko lu mu ko wax gaawal génnal suba teel nga quitté dëkk bi bu kenn ci yéen nag gestu ci lañ ko yëgal sa jabar ak sa doom dañuy dee gis na ñii tamit luut kazalik saalix bi mbugal mi di ñëw yàlla ne ko génnal dëkk bi yaa ngi ñi gëm yàlla borom bi ne fa lamma jaa amruna najjaynaa saalixan walladina amanu maahu bi rahmatin minna fa lamma ba nga xamante ne jaa dikk na amruna sunu mbir mbugal ma ba mu ñëwee lu xew yàlla mu ne najjaynaa saalixan mu musal yonent yàlla saalix mu musal ko wallazina amanu maahu ndax moom rek laa musal mu ne déedéet ak ñi gëmoon yàlla ànd ak moom chaque jour yàlla day musal ñi gëm chaque jour ñi gëm yàlla yàlla da leen di musal même bu ñu demee àllaaxira bu ñuy jéggi siraat yàlla ne summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha ñi ragaloon yàlla dama leen di bàyyi ñu traversé pont bi mooy siraat ñi gëmuloon yàlla ma daaneel leen ci biir siraat ñu daal di daanu biir jahannam chaque jour yàlla day rëccal ñi gëm yàlla moo tax yàlla rëccal saalix ak ñi gëmoon yàlla ànd ak moom bi rahmati minna ci sama yërmande man yàlla laa leen musal ci lan la leen yàlla musal mu ne wa min xizyi yawma idin ci mbugal ci gàcce ci mbugal ci gàcce bis boobu yàlla doon mbugalaate ci loolu laa leen musal yàlla musal na leen ci gàcce yàlla musal na leen ci mbugal mi inna rabbak huwa alqawiyu alaziz fii mooy point bi nag inna rabbaka sa borom huwa moom alqawiyu mooy ki dëgër kenn ëpp ko doole kenn gën ko dëgër alaziz mooy ki not ci nguuram lu ko neex rek moo ci am alqawiy jàngeen ci alquran yàlla mu ne ci sotu baqara wa anna alquwata lillahi jamian doole man yàlla man rek maa ko am kenn amul doole alquwatu lillah fawqa kullu qudratin qudratullah gis nga su jullit eggee foofu kenn dootul dëgër ci sa kanam ku lay jaay doole yàlla moo ko ëpp doole yàlla bi mu yónnee firawna Moussa ci firawna mu ne Moussa demal Moussa mu ne yàlla su ma demee su ma génnee dëkk bi daf may topp yàlla mu ne bu la toppee ma topp ko Moussa génn peuple bi Firaaw na topp ci yàlla topp ko gis nga fu ko yàlla mujjee mooy yàlla lubal ko baxlu ma xalzum yàlla labal ko kon jullit na gëm ne inna rabbaka huwa alqawi al aziz gis nga yàlla sayid xawaa nee na bu ngeen jàngee alxuraan bàyyi leen xel aayee fu muy jeexee inna rabbaka sa boroom huwa moom alqawi yi mooy ku dëgër al aziz mooy ki not ci nguuram mooy ki dëgër ba kenn mënul foq wañ loxo bi foqarti li mu yor al aziz mooy ki not ci nguuram lu ko neex rek mooy am mu ne wa axasa allazina zalamu assayha fa asbahu fi diyaarihim jaasimin ka an lam yagnaw fiha ala inna thamuda kafaru bi rabbihim ala bu'dan li thamud borom bi ne mbugal ma dal na ci tooñkat yi wa axaza allazina zalamu assayxata mbugal mi dal na ci kaw tooñkat yi tooñkat yi kan lañ tooñ dañ tooñ seen borom tooñ seen yonent tooñ gëlin gi tooñ seen bopp tooñ baaxul yàlla dafa ñu koy tere te tooñkat fu mu dugg ëllëg yàlla fekk ko fa génne ko wa sa yaalamu lazina zalamu ayya munqalibin yanqalibun yàlla mu ne tooñkat yi fu ñu dugg ëllëg dinaa fa dugg loqarti leen génne leen tooñ baaxul de moo tax yàlla araamal ko ci boppam inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazaalamu tooñ bi gën a rëy mooy shirk moo tax yàlla mu ne inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ gu rëy xam ngeen lu tax bokkaale nekk tooñ gu rëy yàlla bind la ne la jaamu ma nga bàyyi jaamu yàlla dem jaamu sa morom loolu du tooñ amal jabar rek mu bàyyi la fi dem ci beneen góor luñ la expliqué doo ko dégg bu imaam màkk ñëwoon sax naan la c'est que da nga naan nii rek nii ngay def di xool waa ji mais doo dégg xool wax ji nii lay romb bir bir di dem doo dégg doo dégg de parce que image bi mooy rëy ci yow inna shirka la zulmun loolu doyul yàlla mu ne azim déggu leen wax bi de bokkaale ñu ne ah yàlla mu ne tooñ la bu weemoon foofu doy na mu ne tooñ bu rëy azim mu da yàlla du ko baalaate inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru dafa rëy moo tax yàlla ne du ma ko baale kon ñiit wa axaza allazina zalamu assayha xaacu bi dal na ci kaw tooñkat yi ba leen xaacu bi dalee fuñ mujj fa asbahu fi diyaarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu xëy faatu këpp en genou ci seen biir kër yi daal di dee xoolal li garaaw yàlla mu nekk an lam yagnaw fiha mi ngi mel ni ñii musuñu dëkk ci dëkk bi musuñoo dund ka an lam yagnaw fiha mi ngi mel ni dëkk bi musu am nit lépp la yàlla rappal lépp a dee allahu akbar ala inna thamuda kafaru bi rabbihim kafaru rabbahum ala inna thamuda kafaru rabbahum yàlla mu ne thamud dañoo weddi seen borom thamud lu muy tekki joxoon nañ ko bi passé thamud mooy dëkk bi nga xam ne ndox mi bariwul moo la ñu tuddee leen thamud samud mooy ndox mu bëriwul seen ndox bëriwul parce que dañ doon naan gëlëm gi di naan loolu mooy samud yàlla mu ne waa samud waa dëkk bu néew ndox ba dañoo weddi seen borom ala bu'dan li samud yàlla ne dama ne waa samud soril naa leen yërmande kan moo leen waroon yërëm borom bi borom bi nee na soril naa leen yërmande wa haa huwa alayhi salaam baada hilaakihim qaala taala saali a ngi nii ginnaaw ba ñu alkoo ndeysaan saali dëgg dugg ci dëkk ba nag di def visite di leen xool mu gis lépp dee ne lépp ràpp na garab yi këpp na tabax yi mu ngi tegu ci kaw nit ñi birig yi lépp dee na dara dundul fa tawalla anhum wa qaala ya qawmi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasaxtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin ndeysaan saali taxaw di wax ak ñoom mu ne wa qaala lahum mu ne leen yaa qawmi yéen samay nit wa qaala yaa qawmi ay yéen samay nit laqad ablagtukum risalata rabbi man day sama message borom jottali naa ko li yàlla waxoon yonent gi man def naa sama liggéey wa nasaxtu lakum laaye naa leen biir walakin waaye laa tuhibuna naasihin yéen bugg leen ñii laayo biir waa saalix waa samut nuroo nañu waa Sénégal de ndax waa Sénégal bugguñu ñii laayo biir fii dafa bëri ci nit ñi sooy laayo biir nit ñi nit ñi dañ lay mere kenn du la bëgg parce que dañ leen di laayo biir gis nga saalix mu ne man def naa sama liggéey de jottali naa leen li yàlla waxoon nekkul ne man maa jottaliwul man jottali naa waaye xam nga lu mbir bi wa nasaxtu lakum laaye naa leen biir sax nee naa leen moytu leen lii def leen lii walakin laa tuhibbuna an-nasihin yéen bëggu leen ku leen laaye biir ndeysaan léeg-léeg nga ñëw ci pénc fekk ñuy def lu bon nga ni eh ñu ne xoolal xam nga yow defoo ñu ne waaw ñu ne sa yoon nekku ci génn ci waaw génn ci yow bokkoo dema sa yoon est-ce que loolu mooy diine mbugal mi bu wàccee ñëpp la mi ngi mel ne nga séen rek xale buy foye gaz ci biir kër gi nga toog naan non man sama yoon nekk ci bu explosé ci ko am moom mooy dee yow sax bu gouvernement bi yëgee loolu yow dañ lay jàpp gis ngeen borom xam-xam yi di seetaan dëkk bi di di- xam nga tey journal bi lu mu wax ci problème mu giin yi lañ doon wax jigéen yi sëy du tey dégg ngeen ko rajo yéen ñëpp affaire bi ñu ne góor jigéen boobu demoon sax États-Unis bu ko neexee mu ñibbisi ndax léegi jigéen ñi ñooy sëy mais ana ana xalifa général Séné ana xalifa diine Sénégal anañ Sénégal xanaa amul ay kilifa diine mais diine ji kenn du ko aar kenn du wax ñu ne léegi jigéen ñi ñuy sëy seen biir loolu boo amatul problème ah léegi dafa et puis li gën a garaaw mooy Sénégal léegi bokk na ci dëkk yi nga xam ne dañoo wote loi góor jigéen dafa normal day am Sénégal bokk na ci wote nañ loi bi démb démb waaw Sénégal bokk na ci dëkk yi ko nangu léegi waaw léegi nag ndeysaan xam nga ñëpp a ngi noppi nañu bàyyi nit ñi ñu nekk ay góor jigéen ñu bàyyi jigéen ñi di sëy seen biir après ñu seet yal nañu yàlla yërëm ixwaan yi fa haa huwa saalix saalix a ngi ni alayhi salaam yu xaatibu qawmahu di wax ak ay nitam baada hilaakihim ginnaaw ba ñu alko وقد أخذ في الذهاب في محلهم إلى غيرها قائلا يا قوم لقد أبلغت لك أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ليس dafa dem ba ca barab ba jàkkaarloog néew yi naan man de def naa sama liggéey laaye naa leen biir mais yéen a nanguwul ay jahattu fi hidayatikum sonn naa pour yéen ngeen jub bi kulli maa am kana nii ci mboolem moye bépp bu ma yàlla joxoon fexe naa pour yéen ngeen jub wa xarastu ala dalika bi qawli wa fiili wa niyati xër naa ci loolu def naa force sama doole def naa ko ba mu jeex tàkk sama wax wax naa ba sama wax bëgg a jeex sama yéene yéene naa ba fu mu yem pour rek ngeen baax mais ma alasaf walakin la tuhibbuna annaasihin bëggu leen ku leen di bàyyi ku leen di laaye biir bëggu leen ku leen wax dëkk waaw bëgguñu ku ñu wax dëkk lam takun sajaayakum taqbalul xaq yéen seen njom ak seen dignité mayu leen ngeen nangu dëgg waaw Sénégal mooy dëkk boo xam ne bëgguñu dégg dëgg sooy wax dëgg da ngay da ngay da ngay da ngay néew kenn ngay nekk da ngay bëri noon doo bëri ñu la bëgg dañ lay beddi dañ lay takkal ticket sax pour ñu xàmme la dañuy fexe ba peuple bi bañ la parce que da ngay wax dëgg bu fekkoon ne da nga bëgg mbooloo doo bëri mbooloo bu fekkoon ne ab imaam nga buy jiite ci jàkk jumaa ji ñu bëri duñ fa jullee bu fekkoon ne ab waaraante nga da pénc mi ngay waaraate ñu bëri duñ fa dem parce que da ngay wax dëgg waaye nag noonu mooy sunanullah fil ardan mbooloo ñi dem àjjana dañuy tuuti moo tax ñi bëgg dëgg dañuy tuuti dafa am benn xalif général ci Sénégal dafa woot dafa utoon benn parti politique mu tas mu tas taalibe yi nag ne leen dem leen ngeen ut nit ñi ngeen campagne pour ñu gagné benn bis rek benn taalibe ñëw ne ko diw mu ne ah mu ne ñooy gagné mu ne lu tax nga wax loolu mu ne ko ñi baax ñi ci dëkk bi yëpp ñun la ñu àndal mu ne kon du ñu bañ du ñu gagné mu ne ko lu tax mu ne ñu baax ñi dañoo tuuti. bu fekkee ñu baax ñi rek dinañ ñooy ànd ak ñun mu ne ah mu ne kon duñ gane de lu tax mu ne ko ñu baax ñi dañoo tuuti. évite te loolu mooy sunanullah aljanna bu ñuy dugg yàlla wax na ko. sullatun min al awwalin wa qalilum min al axirin yonent bi bi mu koy firi xam nga lu mu wax téeméer bu nekk kenn mooy dugg junni bu nekk téeméer mooy dugg aljanna. téeméer boo jël benn nit mooy dugg ajana junni boo jël téeméer mooy dugg ajana gis ngeen kon fu ñu jëm moo tax dëgg ñu bari duñ ko nangu te nit day gis dëgg mu ngi nii lii la yàlla wax lii la yonent wax mu ne waaye nag est-ce que ginnaaw yàlla nee na yonent nee na wax war na cee tegatu lu dul sami'na waataana yàlla li la wax waaw yonent li la wax waaw waaye nag man wax dëgg yàlla li mun moo ko def ndax kon samay mbokk samay mbokk dañ may bàyyi mbokk yi nee na def naa bépp effort pour ngeen jub waaye yéen bugg leen dëgg continuer ngeen ba mbugal yàlla fekk leen fi pour ma wax leen nitu saalih yi ci danger lañ nekkoon yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dafa dem xeex tabuuk waa waa samud ñu ngi dëkkoon ci arabi saoudite balaa yàlla yónni yonent yàlla muhammad yonent am na lu mu gis ci seeni kër gis na na leen yàlla mbugale woon tabax yi nu ñu mujjoon mel teen bañ doon naanee leen ci seeni bagage ak seeni dëkkuwaay ibnu umar nee na lama nazara rasul saa sallam bin naas ala tabuk nazala bihim alxijab yonent bi ba mu wàccee ca tabuk mu ànd ak sahaaba yi ñu dugg ci place boobu nga xam ne waa saalix fa lañ dëkkoon inda buyuti samuud fastasqa naas nit ñi bëgg naan ca teen ba commencé samp tànt yi taal cin yi tekk gëléem yi commencé leen jox ñax ñuy lekk yonent bi salaa salaam ne leen takk leen fii kenn du fi taxaw fii bu ngeen fi bëggee nekk leen dong mooy mun a nekk mooy su ngeen fi duggee di ngeen fiy jooy ba ba ngeen di génn su ngeen fi duggee da ngeen fi dugg ak naqar di jooy ba ba ngeen génn fi kenn du fi dugg di kontaan yonte bi mu ne saaba yi takk leen gëléem yi këpp leen ci nii saaba yi bi dañoo tiit yonte ne leen damay ragal mbugal mi wàccoon seen kaw wàccaat seen kaw yéen ñii Abdullah ibn Omar nee na yonte bi saa salaam daf leen wax ne laa tadxulu ala haula al muazzabin illa an takunu baakin wa in lam takunu baakiin fala tadxulu alayhim an yusibakum misla ma asaabahum bu leen dugg ci nit ñi nga xam ne yàllaa leen mbugaloon lu dul ngeen di jooy su ngeen mënul jooy ndax xol yu wow wala bët yu amul rongoñ moo leen teree jooy kon de bu leen fa dugg na leen fa jooy rek dugal xool ni leen yàlla mbugalee ngeen jooy su fekkee du loolu bu leen fi dugg fala tadxulu su ngeen reppee ba dugg yonti ne ne mbugalum yàlla dina wàcc seen kaw ni mu wàcce woon ci xaw mu saalix kon gis ngeen moo tax fekk nit ku bon kër ga mu dëkkoon nga dëkk ci wala barab bu mu doon liggéey nga liggéey fa wala fu mu jaaroon nga jaar fa wala lu ko faat musiba naaru laay la kenn du fekk ku bon bàyyi bàyyi bàyyi kër ga mu dëkkoon nga ñëw di fa dëkk wala barab ba mu nekkoon nga ñëw di ko fa remplacer lu dul nga ñëw di fa jël loo lu la waar lu dul lu la waar pour nga waaroo fa su fekkee loolu de mën naa nekk mais bu fekkee loolu soo fay nekk la ko daloon ñëw dal la yal na yàlla def si ñun dégg ak topp li mooy dar si tay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu